kontaan nga wala kontaanoo. waaw bis bi bis bu rëy la. kontaan nga wala félicité Ablaye Diakhaté. lamb chaque dimanche kontaan parce que chaque dimanche lamb dafa war a neex. chaque dimanche lamb dafa war a évoluer. te tey mbar jóge na ci classe dem ci beneen classe. muy général bu Malika dafa bokk ci lamb. waaw yoon la. li mu bëri décision la làmb décision la. boo ñëwee ci bis da ngay xam ne bis bi da nga cee bokk wala da nga moom. ñaar yooyu bu la ci war rek boo ñëwee da ngay xam ni nga ci war a def. mais général bu Malika tey ñëw ñëw na xam ne bis bi bisam la. mu ñëw bëri ak décision xeex ak Diam nu kenn mësul xeexeek moom kenn ñemewul xeexeek Diam Terry nii nàcc nañ ñoom ñaan ñëpp ñoom ñaar ñëpp nàcc nañ mu lay wax ni combat gladiateur la combat bi mënul yomb ñu félicité leen bi ñu bëree ba pare waxante nañ lu rafet loolu mooy sport dañuy bëggante bu ñu nekkee ay adversaire lu ñu neex mën nañ ko waxante mais bu làmb ji jeexee lu rafet rek a ci war te général bu Malika def na ko Diam Terry def na ko ñu encouragé leen ñaanal leen borom bi defal leen jàmm daf maa remarqué waat encore une fois tey ma toog xool arène bi xale yi fi toog mu bari lool xale yi ñoom làmb rek la ñuy topp léegi loolu daa am taxawaay bu ci waa réew mi a am waaw dinaa ñëw ci loolu biir bëri bi amul amul amul amul erreur de Diam Terry def na erreur warul woon taxaw dëggal boppam xam nga làmb da ngay woor léeg-léeg mais mbër yi des fois dañuy topp bëre guerrier te làmb du yëfu guerrier làmb du yëfu guerrier de waaw jikko jikko baaxul ak doole ak doole nag da cee bokk général bu Malika daa am compétition général bu Malika day compétir mi ngi ci simple bi mi ngi bëree te mbër lii la mi ngi bëree frappe combat jafe mu dem ci simple bi di compétir daf koy tax mu nekk yaramam fendi boo ko xoolee tey yaram bi ni mu bindoo nga xam ni mbër la na ko gars yi di tëggal ay combat ci la bokk ñoom ñaan ñëpp seen làmb tijjeeku na jamteer sax ñoom ñaar ñëpp jamteer làmb kenn mënu ko bañ daf fee def ay jaloore daa bokk ci làmb général bu Malika tey mu tijjiwaat beneen buntu tijjiwaat buntu boo xamante ne da ko war a yóbbu ci kaw tey ji xale yi xale yi di bëre ay liis njaago yi di bëre liis ñoom Lac Rose ak yooyu classe boobu général bu Malika fa la bokk chance bi ñu defal franc nañ ko du sax chance da franc moo liggéey ba yegg foofu mais buntu yi ñu leen nañ ko tijjil bo général bu Malika daf cee bokk mu mën a fekk ci gars yi ndax mën na mottali classe bi. jamteeri ba tey foo koy classé. jamteeri mi ngi ci classe bi ba tey. ci gàmm mi ci gàmm boobu ba tey ci làmb la bokk làmb am na yegg dootoo wàcc. da ngay bokk si làmb Tapha Gueye numéro 2 day bëree parce que làmb da koy soxla làmb a ngi noonu. làmb am tey am démb dëkk Diamaguène Sicap Mbao beneen xale ñëw wane muy Soleil Gaye muy Feu Rouge tey ñu def exploit bu am solo mu mel ni tey jii mi ngi annoncé la couleur du 24 novembre. waaw Diamaguène moom moom dëkku làmb la Diamaguène tamit dëkk la boo xamante ne boo seetloo. bi fa écurie Lamsaar sosoo taxawee ba léegi ñi ngi wane seen bopp ci làmb ñi ngi wane seen bopp ci lu bari ci làmb ci façon bu nekk démb su lay gañe na na ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax tey Farouz gañe mais Farouz gañe na difficilement face à un cheikh super jamono bu am jom mbër bu am jom mbër man dama ci bëgg nga am jom te cheikh super jamono dafa am jom cheikh super jamono saa bu duggee ci biir fii baxan bi lay teg day balaa daanu day metti de. amul ko ne ko am parce que vainqueur la

waa ba général bu ma waa Malika di tëgg dëkk bu ci nekk li fa génn ci ay ndaw tey mat na cinq cent wala mille jeunes yoo xamante ne ni kon tey ñu wax ñu war a xool lii ñëw ci làmb ji ni mu toll ak li ñuy fekk si lan la lii bu ko tubaab amoon exploité na ko bu yàgg bu yàgg dafa am dafa am benn richesse bu nekk ci làmb te richesse bi mooy jeunesse bi ay ndaw ñoo koy pratiqué xale yi koy pratiqué ils sont plus de six mille wala sept mille ci réew mi ñom ñëpp duñu bëré ci année bi. ay licenciés ay licenciés té duñu des fois douze personnes qui hum. écurie bi day am plus de 60, mbeur mais 12 mbeur mo ci bëré ci année bi yëpp. Hum. loolu ñeneen ñi des buñu amul métier day métti ci ñom hum. té ñun ñi di encore fois dañ leen di rappeler waat waat leen. xamal leen ñun bokk ñun. comme tay ministre des sports. na gëna xel nguur euh, CNG bu bees bi ñu liggéey ci ay sponsor ñoo wuy si làmb sponsor yi ñoo mën a tax xale yi bëre tey am na ay promoteurs yoo xam ñu ngi tëgg mais seen journée du fees wala du neex parce que duñu am ay sponsor na Abdou Aziz Ndiaye jox nañ ko li nga xamante ne moom mooy sponsoringu làmb na ci jàpp na si jàpp na fexe sponsor yi jàppale promoteur yëpp loolu dina doon lu am solo dina doon lu yóbbu lu yóbbu làmb ci kaw macha allah général mooy que nee ci kaw ñi ñuy bëri ñuy ci kaw ñëpp ñëpp ñëpp général Malika Sokh combat la général Malika Serigne Ndiaye combat la général Malika Kouwens combat la Malika Garga 2 combat la mu Malika Garga 2 mu Malika mooy lamb ji waaw lamb jaa ngi noonu lamb parce que ay technicien lañ Garga 2 ku ko dàq bëri ci parcelle amul général malik ak fugum ak ni mu mel du sané général malik combat mais Garga 2 général malik daa lamb dàqul lolu lamb dàqul lolu lamb dàqul lolu Garga 2 général bu Malika le 24 novembre lamb la bés la bés la comme bés yep bés la comme bésu tay bii bu le 24 novembre joté ci 20 h wala ci 21 h ni lañuy taxawaté dañuy waxtana inshallah parce que bés la comme bés yep du weesu ñaari mbër yi ku ci nekk bëri ga bés bu tol noonu du weesu promoteur bi moom moo njëkk a feesal arène nationale du weesu amateur yi seetaan nañ Balla Gaye Yékini lamb la déedéet dootul weesu bés dañuy ñaanal ñaari mbër yi ku ci nekk am concentration bu doy mais dayu combat bi combat bi da c'est le combat royal c'est un chaque année wala à chaque fois buñ ko tegee day am dayo xale bi xale bi outsider bi Siteu daa lu mu bëgg am fi mu jóge yaa ngi fàttaliku keroog bi muy téye bi naan père damay waat xoolal image boobu nga xool fi mu xuus fi mu jaar ba yegg si fii jàmbaar la Modou Lo keroog bi mu bëri ak Bouba Diop kenn yaakaarul woon day doon roi des arènes maanaam ñaar ñu kenn yaakaarul woon ñoo yegg ci bi ñoo si ci kaw ku ci ne mën ngaa daan Modou Lo avait créé la surprise keroog bi muy bëri ak Eumeu dafa làqatu nëbb boppam nëbb boppam amateur yi nëbb boppam Eumeu Sène nëbb boppam waa làmb bi mu summi koo làmb ñëpp a jommi bi mu bëree expo wane boppam keroog ñëpp a bis boobu la ko làmb nangul képp ku ko xamul woon bis boobu nga ko xam Siteu nag am na chance wane na boppam ci ay bés yu mag waaye am na chance su bëre combat royal combat bu mag la que le a a open moo waaw Modou Lo moo gën a avantage ci côté yëpp. waaw Modou daax a xeex. moo daax a bëre. doole dañ mu doole Siteu mënu ëpp ko ko duma ko dama koy werante Modou Lo moo ëpp lépp ci combat bi Siteu war a wane lépp ci combat bi. Siteu moo war a wane lépp. est-ce que ànd nga est-ce que ànd nga ñuy wax. ci sport laay waxee keroog Siteu bi muy bëree Papa Sow dama ne Siteu Papa Sow ko dàq bëre. Siteu moo war a bëre moo war a xeex moo war a daan. bii du ma ni moo war a daan parce que tolluwaay yi du benn te am na fuñ ma xaw a féetale ci combat bi te demagul fenn te dañuy foo rek mais Siteu moo war a wane lépp Modou Lo a déjà confirmé ce qu'il a li muy def ci làmb bu bëreewaatee bu daanee Siteu ah. dañ naan ci la bokk rek waaye Siteu mu daan Modou Lo loolay exploit

que le meilleur xam naa ñu ngi jël sa temps mais mbër mu bëgg a daan Modou Lo ban heure nga war a dugg arène mbër mu bëgg daan Modou Lo daal warulaa njëkk a pare ci biir géew bi bu pare ba échauffé wu na fekk nga pare arbitre bi siffle la ngeen bëre waa ndax Modou Lo bu Modou Lo deux yi yëpp day pare lu ma trente wala quarante ba une heure de temps avant son adversaire loolu da ngay am loo jiitoo sa adversaire yaa ngi def say assouplissement yaa ngi ci biir combat bi sa adversaire moment boobu mi ngi xëppoo ay gàllaaj dafay tooy. bal bu paree balaa ñëwaat balaa ay yaxama tàngaat ba mu ñëw dugg ci combat bi day yàgg moo tax Siteu bu dee dañ koy conseillé dañ koy wax ni ko bu Modou paree na pare ngir làmb ji mën a neex ngir ñu bañ ne Modou ko mën wala ñu naan pareegul woon ci ay gàllaajam ak yooyu ndax bëgguñu làmb ji pare ñu daan kenn ñu naan nii la demee ali bi am bëgguñu alibi na ñoom ñaan ñëpp yàlla nañ pare yàlla nañ wér yàlla def jàmm uh-huh. te ñun tamit yàlla defal ñu jàmm bis ba ñu mën a ñëw want ko jox sénégalais yi uh-huh. information bi baaxeel sa gars ak sa ñi nga xam te ñooy say compagnon ñaari baat ci ay conseil parce que dañ koy soxla ci yow da ngaa baax rek da ngaa di ma laaj conseil mais ñun la affaire bi ñun la parce que boo seetloo lamb dañuy wax mbër la dëgg la uh-huh. mais bu mbër bi bëree ba pare kan mooy tax sénégalais yi gis ko ñun la léegi ñun nag ñun ñoo koy rafetal tubaab yi dinañuy wane ay image des fois mais ci ay am fuñ koy dafa am angle mais tey du ñëw ci bis bi am ñu bis bi bi man de bi may mais image bu ñaaw ci sama ci sama télé micro sama image parce que bu ñu jaay ñun tamit set

bu boobaa di nga xam liñ ciy def. parfois ma ne ñun ñooy quatrième puissance du monde. mais ñun ñooy adduna mais da ngay xool ad mais da ngay xool adduna bu bu imagine toi tey jii nii télé yëpp Cristiano Ronaldo Messi biñ fiy nekk. télé yëpp biñ demee foofu kenn seetaanatul dara toog nañ fi trois ans yoo xam classico neexul. yàlla na yàlla def jàmm booy bi li muy def. jaajëfal Zela la li mooy foofu Zela 2010. jaajëfal ayca Modou Mbaye jaajëf mon frère jaajëf.